si ci ànd bi ak télévision Futurs Médias daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës accident bu métti bu am rek ca boori Mbirkilaan benn woto bu sept place mu mbëkkante ak benn camion citerne bu doon jëm ca Mali ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan bokk na ca euh, chauffeur bu sept place boobu ak kenn ca ña doon euh, tukki euh, lu soxal wàllug accident yooyu sax ñu ne ab projet nag de loi ñi ngi ci liggéey jamono ji nag kon jàpp ni teeru na li ko tax nag boobeeb euh, projet de loi mooy indi ak yoonal euh, ci code de la route ndax accident yi ni ñu ko gisee euh, bari na ñu ne sax permis à point yooyu bis bu ñu ko jëmmalee dëgg nag dina tax rek accident yi wàññeeku bu baax a baax accident yooyu daanaka lu ci bari ñu jàpp ni rek dana tukkee léeg-léeg ci ni chauffeur si di doxalee beneen ponk ci biir xibaar yi port autonome bu ndakaaru nag juróom benn fukki milliards ci recette la daal di def nag atum 2020 mooy seetlu gi ñu ne wàññeeku na nag la ñu daan nemmeeku eh, directeur bu port bi nag moom jàpp na ni mbas mi ñuy coob ba tey nag amul gu am solo boo xamante ni indi na ko eh, ci li port autonome bu ndakaaru daan dugal eh, ci xaalis dinañ wax ci jàngoro ji nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak nag ma ngay lëmbee ca Kayar seetlu gi ay doomu aadama yoo xamante ne nii seen biir ngay daw ña ngay wàcc boole kook tàngoorub yaram ak biir buy metti ñàkku cet nag nee bokk na ci li nemmeeku ñeel gargo njaboot ak askan wi ngir ñaax leen bu baax a baax rek uh, ci jàngoro uh, joojee uh, parc urbain forestier nag daanu ko rek kon daloo du yàgg liggéey bi ñu ngi ci fukki hectare nag ci lay toll ñu fas yéene ko def rek ci ancien aéroport aéroport Léopold Sédar Senghor ba woon projet boobu nag ñu duppee parc forestier Dakar Yoff nag ni ñu ko waxee rek ci décret lañu ko tëralee ci décret mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dale na jàmm ci xibaaru marax mi li ñu ko waxee woon nag ci ndoxte li ab accident bu métti moo am rek fële ca boori Mbirkilaan benn daamar bu sept place nag moo mbëkkante ak benn camion na bu bàyyeekoo mbaaboog sax bu doon wutali euh, réew mu Mali ñaari doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan chauffeur ba la muy chauffeuru sept place ba ak kenn ca ñu newoon euh, ca set place ba euh, lu soxal nag kon néew yi ñooñee yóbbu nañu leen rek ca hôpital Kaffrine waaye it ña ca jëlee gaañu tamit jàpp nañ ni euh, gaañu gaañu yi metti na ba ñu jëmalee leen ba ñu rawalee leen ñoom it euh, ci hôpital euh, bu Fatick gendarmerie nag teg na loxo chauffeurub camion boobu. lu jëm nag ci accident yaat li ñu kook euh, ni mu jéggee dayoo am na projet de loi boo xamante ne nag fi mu ne ñi ngi ci li ko tax a jug nag mooy indi ak yoonal ci code de la route ndax accident yi bari na ni ñu ko waxee ñu nit euh, permis à yi ñuy wax boobu ba tey euh, tey nag bu ñu ko jëmmalee daal dina tax ba accident yi wàññeeku bu baax a baax accident yooyu sax ñu gis ni lu ca bari nag li koy sabab bokk na ci léeg-léeg ni chauffeur si doxalee ci tali bi ñu teew teewlu jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu dembe bi di Mansour Faye parce que am na projet de loi boo xam ni fii leeg euh, maanaam fan yi néew bu neex yàlla daañ ko présenter conseil des ministres pour ñu voter ko donc projet de loi boobu dafay defaraat maanaam le code de la route euh, jugal ci ay jumtuwaay yu bëri jugal ci ci wàllum oto nu muy euh, maanaam par exemple même boo boo pédagogie ou par exemple am permis wala pédagogie maanaam pour affaire auto école mais aussi ak permis à point voilà dugal ci ay jumtuwaay yu bëri yoo xam ni maanaam danañu mën a permettre ñu jël ay décision à travers ay décret pour gën a mën a taxawal respect code de la route parce que gis nañu accident yi lu ci bëri boo ci jëlee téeméer juróom-ñaar fukki yi maanaam xëy na ci dawal bi la wala ci chauffeur bi la du ci euh, du ci maanaam infrastructure yi parce que tali yi baax nañu signalisation yi baax nañu mais yëpp daanam lu ñu facteur humain moom may indi accident donc bu ñu nee facture humaine nag il faut que ñu mën a sanction yi mën a approprier et loolu avec le nouveau code de la route daañu mën a mettre en application lu bëri surtout les permis à point pour que maanaam euh, wàññi wala mbàllum accident yooyu la ma nga ko Pape Fara Ñing moo taataan yooyee euh, kàddu lu soxal nag euh, bus euh, transit rapide bi nag liggéey ba Sénégal gis nañu ni soobu na ci bu yàgg ñu ne nag léegi tey daal caabi yi ñu mën koo joxe waaye it yoon wa ñu mën caa tegu ci weeru décembre bi daal 2022 ci la ñu amal app bi ngir nag liggéey ba yemb daal ba yëpp tàmbali ngir ñu gën a yombal dem bi ak dikk bi jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi sax mu nga doon nemmeeku liggéey ba c géejawaay ak Liberté euh, sis ni ko waxee liggéey bi la ci des euh, bareetul waaye maire bu Ndakaaru daal bu sañoon daal ñu gën a baral yëf yi ngir nag ñu gën a gaaw a joxe caabi tamit Pape Fara ñi ngi lañu ci àndal ak ama du faaw ñu xaar at ak genn ngir mën a gis nag ab oto daal di daw ci tracé bi nga xam ne moom la ñuy def bus rapide transit bi ñu naan ko BRT ministre bi yor wàllu dem beeg dikk bi ci suuf nag amaloon ab visite de sance ci loolu jàpp na ne du yàgg dara jafe yëpp daal di jeex. 300 milliards de francs CFA la ci état bi def ànd ceeg ay partenaires am def ko ci 300 milliards yooyu yu ci bëri lu toll ni 136 milliards environ ci wàllum infrastructure la lu ci topp ci wàllum ñun bis yi la ak exploitation bis yi au plus tard en décembre 2022 bu soobee suñu borom mu dara tawul chantier bi dana dañ ko livré. lu jëm ci jaaxle bi nga xam ne askan wi dinañ ko am nag nga xam ne ñu ngi jëm ci nawet bi ministre bi jàpp na ni lii di berte bi du indi benn jafe-jafe. parce que jël nañ ay matuwaay ci wàllum moto pompe ci wàllum drainage ci wàllum travaux assainissement bi nga xam ni ONAS moom moo amee daanaka wàllu boobule liggéey ceeg waa CETUD liggéey ci aussi ak CRBC pour que hivernage bi ñuy dugg jafe-jafe du ci am donc yaakaar nañ daal bu dara yàlla suñu borom bu dara tawul incha allah bi ci wàllum hivernage conséquence du ci am ou conséquence bu ci am am aussi dana néew mais gëm nañu luy am vraiment lu néew lay doon parce que jël nañu motaay yu lu nit attan mën a jël jël na ko. liggéey nag dafa laal dem beeg dikk bi ci ndakaaru moo tax maire bi di ñaan ñu gaawal li ni mel. nawet bi xëy na dana ko gën a yéexal waaye li ñu bëggoon daal vraiment travaux yi gën a avancé parce que xam nga ne Dakar fan yii ñu jëm rek danañ am ay événement yoo xam ne àddina dafa ñuy wuyu si kon loolu bëggoon nañ balaa looloo yegg si décembre 22 2022 baax na mais bu munoon a gën a rapproché euh, délai de livraison yi mooy gën ndax ñu mën a am une circulation fluide ni ñu koy waxee bouchon yi wàññeeku ndax gan yi ñuy mën a teeru ñu mën a circuler librement dans yi et dans Guédiawaye. visite boobu nag ministre mu ngi ci àndoon nag maire bu Dakar ak bu Guédiawaye ak ñaari dëkk yooyu nga xam ne fii la BRT bi daal di aw. ñu koy jaajëfal euh, Pafara ñi nga beneen jëwrin mooy bi ñu dénk wàllug artisanat moom ma nga doon amal ab nemmeeku euh, ci mécaniciens yi nga xamante ne nag euh, ñoo doon yuuxu boobu ba tey ngir ñu taxaw ci seen i jafe-jafe mooy nag ñu nekkoon ca ancienne piste ba nekk ca Ouest Foire muy mécanicien nekkoon ca ancienne piste ba ca Ouest moom nag jëwriñ ji daal ba mu fa yeggee déglu na bu baax a baax mécanicien nag jaare nañu ca wax ko rek seen i jafe-jafe yooyu nag bokk na ci boobu ba ni amuñu neen nañ euh, fu ñu leen def waaye leneen la ñu jooy ci kanamu jëwriñ ji mooy rek ñàkk jot ci koppar yi ñu jagle euh, jagleloon ñenn ci euh, liggéeykat yi mu ñeel force Covid 19 dañu ci ànd ak Fatou Bintou Konté ak Mohamed Dieng. gis nga situation bi nga xam ne moom lañuy ñuy dund situation anarchique mbalit mi xat gis nga fi nga jaar pour nga accéder rek c'est tout un problème loolu la ñuy yendoo du lundi au samedi. li ñu gën a soxla mooy nekkin bu baax nekkin bu garanté fu ñu nekk liggéey. définitivement nga xam ne kenn dootuñu fa jëlee. lii daal moom lañ ñuy ñaxtu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di mécaniciens yi nekk fii ci ancienne piste ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fee ci miiru aéroport bi fee nga xam ne moom moo di Ouest Foire problème espace ñoom moom la ñu am ba tax ni ñuy ñaax ki nga xam ne moo di seen jëwriñ mu jàppale leen ci balaa ñu leen a dàq. chaque jour yaa ngi xalaat ne tey bala maa wàcc ñu jël samay bagage loolu kon mënoo faa def dara. mënoo faa def dara loolu dégg ngeen ko déggati ko. mu ñëwoon nag ameloon ab nemmeeku moom mi nga xam ne moom mooy ministre de l'artisanat jëm leen a nag mettre en confiance ndax jàpp na ni ak nouveau plan de d'aménagement urbain bi lee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di mécaniciens yi nguur gi fàttewu leen. soo amul local mënoo am équipement ndaxte pour nga mën am équipement fenn il faut nga am local parce que su dul loolu yenn investissement mënoo ko def soo formation capacitation yi mënoo ko laajte parce que yow sa xel mi ngi nekk ci fi nga toog ndax di nga fa jóge wala déet. ñoom mécanicien yooyu it beneen bëbët amoon nañ ko mu di fond post Covid 19 bi nga xam ne jamono ji Covid 19 bi ñi nga xamante ni jotuñu te euh, te président de la république waxan ci ba joxe date 15 mai bi passé kenn deful benn réaction moo tax la 23 ba ci leen commencé woon waxtaan pour nañu defee manifestation ndax xaalis bi dem ci seen borom. muy 35 milliards yi ba ni mu mujjee 5 milliards moo génn 30 milliards yi ba léegi mi ngi des. su bi di xamal ne du yàgg dara dinañ ko lijjanti nu mu gën a gaawee. mais nag ne nit ñi xam ne que cinq milliards la woon cinq moo njëkk a génn kon 20 des suy ñëw nag ne nit ñi am tamit xel mu dal ne que lu ñëw rek ñu del vingt milliards yëpp ne joxe ko dinañ ko jéem a seet nan lañ koy dexe ci kaw ay diir. ñu tegandi ko tegandi ko tegandi ko ba mu mate. mu leen di xamalit ni lii nga xam ne moom moo di ay buntam tëjalu ko kenn ku ci nekk wax ngaa mun a ñëw ñu waxtaan ci li nga xam ne sax moom moo jëm ci avenir u métier mécanicien ci Sénégal mairie bu nekk artisanat ko fay niñ ko waxee woon ci euh, ponk yi juróom-benn fukki milliards ci suñuy koppar nag euh, moom la port autonome bu ndakaaru euh, dugal ci atum 2020 wàññiku na nag bu ñu ko méngalee ak at yi weesu waaye nag directeur bu port bu moom ma ngay xamle rek ni naam sax mbas mi méttee na fu ne waaye nag amul gàllankoor bu rëy boo xamante ni indi na ko ci koppar yi daan dugg ca port autonome bu ndakaaru moom directeur boobu ak PCA bi ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi amee Mbaari Sow port autonome bu Dakar jëmmal wane ab bilan ci ñaari at ya nga xamante nit yor nañ ko ci jamono mbas mi. Euh, Covid bi mu ñëwee ñu bëri tiit nañu euh, am na moment yoo xam ne euh, xaaju personnel bi la ñuy bàyyi ñu liggéey ñu liggéey si ndax mbir yi demoon na ba tar mais teg nañu benn système boo xam ne à feu continu nga xam ne port bi musul taxaw. Euh, li ñuy def couvre-feu euh, ak état d'urgence bi yëpp euh, liggéey nañu ak ministre de l'intérieur liggéey nañu ak autorité gouverneurs yi ak préfet yi bu ñu permettre ñu camion yi di mën a dugg di génn. njiit li di directeur gi moom ni lii di mbas mi sax doonut loo xamante ne sonal na leen bu baax ci seen wàllum koom. li ñu ragaloon ne résultat port yi dina wàcc. Euh, loolu euh, tey euh, mën nañu wax ne amul résultat bi yokku na bénéfice su dix dix virgule cinq milliards lañ def même su fekkee ne année passée en deux mille dix neuf bénéfice bi ëppoon na loolu mais quand même ñu ci am mbégte. port bu Dakar doon na loo xam ne lay doxal koomuk réew mi la. te jamono ji sax moo fas yéene yor yeneen port ya nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi yi ki mel ni bu Ziguinchor bu Kaolack ak bu Ndar ak yeneen mangoo ko ci ndimbaluk Habib fay la woon ñu koy jaajëf Laminata Bari Sow ci reportage boobee euh, syndicat bi ëmb liggéeykat yu post ak télécommunication nag ñoom ña ngay ñaawlu rek euh, nee nañ doxalinu kër ga na kër gay doxee ndax jàpp nañ ni nag euh, dara dëppoowu ci ak yoon te booy xool fukki at a ngi nii kenn saytuwul nag kër ga na muy doxee ba tax na am na lu ñuy ŋàññi ca yorin ba dàquñu ñu nag amal ay assemblée générale yu bari nag ngir ñu dégg leen ñu ne nag poste ma nga cay jafe Ibrahima Sall Sarr moom secretaire général bu syndicat euh, bi ëmb liggéeykat la ñu teew teewlu ko ci micro Maimouna Ndiaye. bureau de poste yu bari seeni liggéey dafa sooxe parce que amuñu jumtukaay te bi ca ëpp solo moom mooy koom beneen bi nga xam ne moom moo ci topp suñu projet de développement yëpp dañu ko fàtte ginnaaw parce que amuñu financement weer bu dee bu jotee pour fay salaire yi gymnastique yu doy waar lay doon mu nekk angoisse ci liggéeykat yi comme qui dirait que la poste est à l'agonie état bi gunge bi war bi nga xam ni moom la ñu war a gunge <laughs> defu ko waaye dafa yoreel ay bor président de la république nee na jot nañu fay waaw dugal nañu dara waaye ba léegi ñu ngi ñu yoreel 37 milliards ci bourse de sécurité familiale yi waaye rémunération service public aussi yoreel nañ ñu ci 20 milliards. ci courant mois bi dinañu décréter journée boo xam ne post dafay xonq coy. pour manifester véritablement notre inquiétude et notre désapprobation par rapport à la politique qui est au niveau de la poste ba pare loolu bu ñu weesoo bu fekkee ne mbir yi nii nga xam ni euh, mooy xew poste buñ ko saafarawul ñu bëri dinañu nekk ci mbedd mi balaa ñu ñoo yóbbu ci mbedd mi nag dinañu woo postiers yi ak seen famille ma ngoog lu soxal nag eh, Wave ak eh, Orange Money eh, kuy jëlati xaalis banque di ko yónnee faw rek mu am nag lu ca tegu loole nag ñi ngi ko xamle gannaaw waxtaan woo xamante ne lalu na woon ci diggante prestataires yi li ko waral nag bokku na ci ñoom ñooñu ñu ne tey ñi ngi jànkunte lay jafe-jafe yu métti ndax lu soxal nag loolee ñu wàññi woon bu baax a baax muy tarif yi daf leen indil ay gàllankoor mu dem sax bay laal la ñu daan am kas néew moo waral nag tey ji ñu amal boobu taxawaay Xaline Ndiaye moom mooy euh, moo jiitee CPCP euh, ñooy commission boobu bi ëmb prestataires yi concertation bi maanaam bi ëmb prestataires yi moom moo ko jiitee ñu teewlu ay kàddoom. temps yi gis ngeen guéguerre bi ñuy mënee entre ñoom Orange et Wave di def des frais presque euh, de 1 pour cent un pour cent yooyu mais ñi ci liggéey ñoom nan la ñuy def ba gagné ci. doon gagné nga réduire ko à des miettes parce que je vous dis que récemment gis naa ay état wu prestataire sama yaram dafa daw dañuy liggéey ba ngoon il na pas à avoir cinq cent francs loolu nga multiplier ko par trente jours c'est combien kooku mënul sax fay local léegi nag pour dire non à face à ça nous avons décidé ñun du ñu nangu ñëw rek ñu ñëw rend ñu jàll ñu ay la lañu dañuy xeex. on a pensé mettre sur pied des barèmes de frais de service qui n'a rien à avec waaw amul dara amul dara lu muy laalante ak wéef lu muy wéef su ko neexee wala Orange ne wala keneen mu ne fayeeku mais ñun ñoo ne ñu wax ci leneen ñeel njàng mu euh, kawe mi ak euh, nañu doon yeesalaate euh, ni ki démb nag amical bi nga xamante ni moom moo ëmb étudiants yi faree ca faculté de droit ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru bari na woon lool coow ak fitna jàppook laale loole nag ñu ne guleet ñu di ko nemmeeku ci amical yi saa yu ñu tollee rek ci di leen renouveler loolu nag la ñu bëgg mu dakk ndax ma ngay bëgg a yàgg lool dañu ci ànd ak Cheikh Diop am na ci ñenn ñoo xamante ne dékk na leen micro. yi ñoom à la base ñoom xam nañ ni seen liggéey pour la plupart ñoom dañuy bëgg nekk en tête et puis rester foofu noonu te ñun tamit dañoo soxla changement des fois. depuis démb gis nañ fi ay saccage ya nga xamante ne noté nañ ko fi te loolu dañ koy ñaawlu mënuñ nekk ay étudiants aussi di di jàng li ñuy wax droit. ñu ñuy gis yenn yi nga xamante ne yeneen faculté yi du ñu nawloo. parce que tey université bu ñu fi ñëwee jàng pour réussir moo ñu fi indi kon bu toogee tey ba nga xam ne ni tey université ñu fi autorisé ay jaas di ci autorisé ay armes mu ne neex nga si autorité bi dafa war a jël ay mesures di pour sanctionner sévèrement ces actes. administration bi man li ma wax sànq rek mooy responsabilité c'est déjà partagé. au niveau des étudiants des syndicats et puis ci ci administration administration moo war a def bu di jël ay mesures idoines. na comme que ay étudiants droit lañ. lépp loo xamante ne yoon sakkul na ko nañ ko def parce que lii ni jëmale réew kanam ndax boo dee ndaw ñu war la xool benn bët bi nga xamante ne yaa war a jubal de suba kon bu ñu la ci gisee tey ngay ñaawal image bi du rafet. niñ ko waxee woon ci ponk yi kayaar nag lanu fa seetlu jamono ji yéeme na euh, muy biir buy daw nag boo xamante ne ma ngay dal askan wa ñu boole kook wacc bu métti yaram bu tàng ba ci biir buy métti loolu nag la ñu fa euh, seetlu muy rek ab épidémie ñu ne nag li ko sabab daal bokk na ci rek euh, kon ñàkku cet ga ma waral service di d'hygiène bu cees nag di wàcc fi mu ne nii ci askan wa ba ci gargot ya di leen ñaax nag ngir ñu gën a bàyyi xel rek wàllu cet googee Cheikh Anta Diop ak Sey diwaanu Thiès fii ci quai de pêche bu Kayar nappkat yeeg jaaykat yi ku ci nekk di dem ak a ñëw ñu gis ne fii de bërëb bu ñàkk cet la weñ yeeg sax yeeg ndox yi nga xamante ne dafa taaju di fi jolli ñu gis ne fii ci Kayar ñenn ci askan wi nee nañ feebar bi tàbbi ci dëkk bi dara waralu ko lu dul ñàkk ak cet. bi ñu defee analyse yaakaar naa lu wax wane ne ni du malade mystérieuse mais nag ak ñàkk set ak vraiment tilim bu bare bari ko xam mi ngi ci quai yi mi ngi ci ñuy togg ak ñooyu. ñoom ñooy siital ndox mi. lii nga gis nii waaw mooy mooy bëri weñ. weñ yi bari na. période mango la ñu nekk te xam nga ni jën fu mu nekk ndoxu jën dina fa tuuru boole kaak salte bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi ndoxu jën yi jën yu deeyeeg jën yu nëb yi yëpp ñu déchargé ko fii vraiment vraiment ñu doon ñaan état mooy que ni ñu indul ñu fii benn sous brigade boo xamante ni service d'hygiène la. loolee tax nag waa service d'hygiène dikkoon fii ci Kayar doon ñaax askan wi moytu bu baax salte bi di raxas ba mu set boole si di wattu bu baax ñam yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay fii ci pegg tefes bari bari bari bari ñiy jaay aussi euh, li ñuy wax gargote yi gis nañu aussi ko set mi aussi foofu demeewul noonu donc bañ gisee loolu aussi service d'hygiène dafa yëngatu si ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy ñu gën a euh, jublu si sensibilisation si beneen fànn bi nag dañu fuy wàccee li ñu ëpp équipe technique bi nga xam ñoom ñooy def li ñuy wax désinfection ak désinsectisation. waa service d'hygiène geetaru yor ay jumtukaay yu takku ngir set setal dëkk bi pompe ko ba rey doomu jàngoro ji ñu ngi sàkku nag ci askanu Kayaar ñoom ñépp nag ñu nekk benn dànk fexe nag bu bërëbu liggéeykaay yi ñu nekk di tefes geeg pegg gi lépp set. lépp set Cheikh Anta ñu lay jaajëfal ñu des ci wàlluk wér yaram dem ba fële ca diwaanu Sigicoor euh, ak euh, kër docteur boobu nga xamante ni euh, ñi ngi doon amal ci fàttali ab téléthon ci atum 2018 ngir rek gën a taxawu kër docteur boobu rawatina ak ci tabax ab jumtukaay ci wàlluk urgence ndax lu fa ñàkkoon la budget ba sax ba ñu ko xoolee woon ñi ngi doon soxla lu tollu ci juróom-ñetti téeméeri million ki suñuy koppar waaye téléthon ba la ca génnoon nag toll na ci juróom fukki million ak ñaar mooy seetlu gi njiital hôpital ba nag moo doon def rek euh, kon ab bilan euh, ci téléthon boobu waaye bañ ca noppeet gis nañu ne la jëfandikoo ci koppar euh, toll na ci juróom-ñett fukki million ak benn directeur ba docteur Martial Colibop lañ koy wax ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi buñ koy organiser liñ doon ci xaarandiku mooy ñu tabax service accueil urgence mooy itam ñu tabax logement yoo xam ne médecins yi ak euh, stagiaires yi ñuy jógee euh, dakaar ñu am fu ñu nekk loolu itam pour ñu am équipement loolu yépp dañ ko xayma woon biñ ko xaymayee tollu na ci huit cent millions mais bu ñu tegee téléthon bi am na ñoo xam ne wax nañ leen ñii dinañ jox lii lii dinañ ko joxe buñ ko xaymayee.

Euh, juróom-ñetti fan ci weeru juin yemook bëccëg bi ñu euh, jagle rek euh, géej gi fiit ci Sénégal ñu màggal ko bu baax a baax loolu yi di wane ni lépp lu soxal nag géej dafa bokk ci sunu dundin lu soxal bëccëg boobu nag nañu fàttali tamit ni mbootaay xeet yi moom moo ko jàppoon ci atub 1992 ngir rek ñu di ko màggal saa yu ñu ci yegsee fiit ci ndakaaru ñu sukkandiku ci tomb bu am solo géej gi nag gis ngeen ni mu tëddee ndax léeg nga dem ci géej gis ñu sànni ci mbalit naka naka it wàlluk napp goo xamante ne léeg-léeg duñu ko teg ci anam yi wóor loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne bokk na ci li ñu waxtaane euh, dañu ci ànd ak abi Faye ak Mardien ci leeral. image yi ñuy gis ci géej gi wane ne lu neex waaye def la lii di ay mbalit yoo xamante ne plastique la ñu koy gis ci tefes gi. doon loo xamante ne ëllëg na lool xeluk ña nekk ci institut universitaire de pêche et d'aquaculture lii waral na ñoom ñu jóg ngir seetal bileeg mbir wax itam ne vie et moyens de subsistance loolu moo waral bëccëgug tey gi nga xam ne àdduna wërngal këpp dañ ko jagleel géej. dañoo nemmeeku ne mbejum dafa salte woon lool dafa am ay mbuus am ay sachet plastique yoo xam ne say yàquwaay gaawul donc mën nañ fi des ay at at moo tax étudiants yi jël décision pour dindi ko teg ko fenn. koo xam ne dañ ko mën bi ñu ñëwee ramassage bi aussi fekk nañ fi quantité boo xam ne am na solo trop trop alors que amoon na ñu ñu jiitu ci semaine de l'environnement bi defoon nettoyage bi ba pare. ñaari canaux yi ñoom ñoo leen sonal moo waral pollution bi bëri. ci tefes gu Soumbédioune gi. ñu en place benn projet boo xam ni dañuy xalaat mettre euh, defar benn jumtukaay boo xam ni day tere plastique bi wala ordure yi ñëw ci géej gi bu ndox mi dee ànd ak ñoom. mbalit mi li muy bari lépp ku ko xool xam ne du mbalitu mool. du mbalitu kuy dem géej mbalit li mu jógee ci kaw ndax ñaari canal yi nga xamante ni ñoo seq Soumbédioune ñooy déverser tout le temps seen mbalit ci biir Soumbédioune. dañu gën a bëgg moo di fii mu gën a doon lu yànj. ñu def lépp ba ñu bañ amat amaat même bi maanaam ñu def lépp prévenir pour que ci kanam lii dootul fi yi loolu nag ñu ngi lëkkaloo ak waa comité local de pêche pour xool naka la ñuy liggéey étudiants yi xëy na mën nañ fi ñëw régulièrement pour leen di jàppal di leen di la ko tax a jóg rek moo di xool géej gi nga xam ne dafa bokk ci dunduk doomu aadama ci kaw suuf Nations Unies ñoom ñoo ko jëmmal gannaaw ba nga xamante ne itam ca bu njëkk ca atum 1992 gannaaw ba ñu amalee ab conférence des Nations Unies ci li ñeel wàllum aalam gi Euh, parc urbain forestier nag euh, dinañ ko amal euh, ci aéroport Léopold Sédar Senghor ba woon dina toll ci fukki hectare ab projet la boo xamante ne nii parc forestier dakaar Yoff la ñu ko duppee ci décret nag lañu ñu ko jaaree jëwriñ ji dénk wàllug koppar gi nag wax na lu soxal procédure yi ngir rek projet boobee mën a antu tey nag ki ñu tànn ngir liggéey bi di benn kërub liggéeykaay bu Marseille atelier architecture Jeylaani la ñu koy wax moom nag moo fas yéene kon soobu ci liggéey projet boobu nga xamante ne waxaguñu koppar dëgg nan lay toll mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar bi mu sotti 20 xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop